ci biir label label Subatel nga xamante nga ki nga xam ne moom mooy eh, Sidy Diop la semaine passée samedi bi passé ma waroon tëgg Kaolack mhm. ñu annulé concert am moom ak Wally Seck ñoo tëgg ñu jël Wally Seck jox ko moom def li nga xam ne moom mooy spectacle am déjà loolu yow lan nga ciy wax waaw maa ngi leen nuyu ñoo parce que ñoom ñaan ñëpp sumay frère la Wally suma frère la suma xarit la Sidy suma frère la suma xarit la mais tey jii nit ñi dañoo war a comprendre nit ñi maanaam musique concurrent yàgg na fa ndax Youssou Ndour nag Omar Pène nag gënoon métti wala Youssou Ndour ak Thione Seck moo gënoon métti te musul ñaaw ñun ñoo ñëpp ay ay frère lañ ñun ñoo far na rafet rek xam nga tey jii nii Wally Seck mun naa tëgg almadi Ibro Naajo tëgg Siri Diop tëgg tey jii ku ñëw ba ba almadi ci nekk xam nga ki war a parce que am na ñoo xam ne Ibro Naajo moo leen saf hmm. am na ñoo xam ne Siri Diop leen saf am na ñoo xam ne Wally Seck moo leen saf pour man ñoom ñaar ñëpp ah mun nañ tëgg te dara du ñaaw. mais ñu bëri dañ doon wax ni que euh, li mu def sax euh, normal la parce que bu Sidi tëggoon Wally Seck tëgg mbosu Sidi du am du bëri nit. waaw xam nga loolu lépp yàllaa xam quoi loolu yàllaa xam te ni ku nekk sa wërsëg ngay ngay ngay ngay lekk. pour man ñoom ñaar ñëpp mënoon mais comme suñu borom noonu la ko dogalee te macha ñu jël même date xam nga tey ay concurrent mu leer la ni yéen ñaar ay concurrent ngeen. kii mën na tëgg tey kële tëgg suba lan moo war a coïncidence ñaari ñaari concert si même jour bi. non xam naa ni ni ko gisee noonu laa ko gisee. moo koy topp di di di jël ay kii ko gisee noonu laa ko gisee xam nga loolu moom maîtriser wu ma ko xamante ne yi mënu si suur du ci wax. Mm. mais ñoom ñaan ñëpp dama bëgg Sidi xam ne waale magam la waale mu xam ne tamit Sidi raxam la ñun ñëpp c'est la famille ñun ñëpp ku ci gagné drapeau Sénégal gagné ñun ñëpp Sénégal la ñu ñëw mm. ak fu ñu mënti dem si àdduna Sénégal la ñuy représenté kon ñun ñëpp war naa mën a rafet ñun ñëpp war nañ mën a génn Sénégal dem beneen réew ñun ñëpp bokkandoo benn affaire songandoo ko dorandoo ko daan ñibbi Sénégal waaw ñun ñëpp ñoo far yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla gën a gën a jubóole ñëpp ñëpp nekk si jàmm quoi